dal leen ak jàmm ku wax 17 avril sa xel dem ci Cheikh Béthio Thioune ak cantakun yi le 17 avril 1946 ci la Cheikh Béthio Thioune daje woon ak sangam bu tedd ba Serigne Saliou Mbacké foofe ca taset ca bis boobe Serigne Saliou Mbacké mu ngi yéegoon ci ab watir ca noone la ab xale bu ndaw dal di daw topp ca watir ba xale boobe tey ji moo di Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké daje boobe waral nag ba at mu jot bu avril ex gisee cantaakoon yépp dañ koy daal di màggal waaye reen ji nag li ci triste moo di taalibey Cheikh Béthio Thioune yi dinañ ko màggal te seen sang ba Cheikh Béthio Thioune du ko fekke mbir mi nag nara nekk guléet waaye nag ki nara takku ba dëgër teewal fi Cheikh Béthio Thioune ci kaw suuf moo di soxna Aïda jàlloo di kenn ci soxnaam yim fi bàyyeeku te ràññeeku loolu ba Cheikh Béthio génnee àdduna ak léegi li la waral nag tax mu taxaw bëgg màggal li nga xamante ni moo di set avril naam sax jàngoro coronavirus gi mu ngi ci biir réewum Sénégal te ku ne xam na ni bépp rassemblement dañ ko fi daal di tere waaye ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo ci beneen anam la bëgg a jëmale bis bi que nag bis bi bu masaana ñëw taalibey Cheikh Béthio Thioune yi maanaam cantaaku ni yëpp dañu daan dajaloo foofee ca Medinatu Salaam di màggal ak sant sëriñ Saliou waaye mu mel ni ren ji loolee du mën a nekk ndax jàngoro ji nekk ci biir réew mi loolee waral sax ba ñu nar ko amal ci beneen fase nga tiire bal moom fi jógee de xanaa dootuma wax waaye feek maa ngi noyyi li ma Serigne defal ma di ko wax ay daag ay daal ji maa ni mooy man mii may moom jàpp ci ayda bi muy dëgg dëgg jàpp ci man Serigne Saliou ba ko waxoon soxna ayda jàlloo nag mën nañ ko méngale ak koo xamante ni dafa xarañ ci wàllum communication ndax kat xaalis bu bëri la yëkkat yi daat koy investir ci ay affiche yoo xamante ni taf nañ ko ci panneau publicitaire daanaka fenn fu nekk ci biir réewum Sénégal geste bi nag ñu bëri ñi àndut ak moom dañoo jàpp ni soxna si dafa nekk di def ab propagande waaye nag mu mel ni moom les chiens aboient la caravane passe ndax kat ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo moom mi ngi jëf ay jëfam te boolewu ci wax geste bi nag dafay wane ni moom soxna Aïda Diallo saa su xëyee di wane fidélité ak attachement ci digganteem ak njam si yàlla Cheikh ca Thioune mi nekkoon boroom këram